waaw waaw mi bëggul dara rëcc la ci réew mi maa ngi lay digal nga suivre concept bii tudd récap du jour fii ci sans limite TV maanaam lundi ba vendredi dañu lay jox xibaar yu wér te woo muy wàll people wàllu ba ci xew-xewu jamono tubaab bi naan ko fait divers danga bëgg a xam xibaar yi ñeel sa artiste préféré sa acteur préféré wala sax sa influenceur préféré récap du jour def la koy jox en temps réel sans limite TV yu amul limite yu amul ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen site d'information sans limite TV midi moo jot ba tegal juróomi simili foofee ci diwaanu Kaolack moo jot teel Yoff Layeen jot itam foofee ci diwaanu Kaolack ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di ñëw ak yéen ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci semaine bile. dëkk bi ñuy wax Ndieye nekk nekk euh, à 5 kilomètres de Pire lu doy waar nag moom moo fa xew. jëmm ji ngeen di gis euh, Baye Mbaye la tudd moom nag euh, mason la woon dëkk bu mu nekk nag dafa am juma ba ñu koy inauguré dafa bokkoon ci ñi nga xam ne euh, dañu daan noddu ba ñu demee nag ba jumaa ji daal di taxaw ñu daal di koy bëgg foll ci saa si moom nag mu daal di ne euh, dootul euh, bàyyi li nga xam ne moom mooy noddu gilee ndax nag dafa bëgg lool euh, li nga xam ne moom mooy noddu bu daan ñëw sax di noddu dañuy couper courant bile ngir bañ rek nit ñi dégg ay noddam te noonu itam mu daal di jàppante ak ñoom xeex-xeex bu métti ñëpp xam nañ itam kenn mënul xeex ak mbooloo ba sëriñam yëgee nag ca ko daal di digal mu bàyyi li nga xam ne moom mooy nodd bile waaye di continuer di jullee ci jumaa jile Euh, moom nag euh, ba muy jullee ci jumaa ji sax dañu ko daan euh, bunduxu xutaal te noonu itam la bàyyi di julli ci mbooloo daal di julli ci këram fonk gi mu fonk alxuraan ak li nga xam ne moom mooy julli moo tax mu tabax benn daara daara bi nag al sax la ko tuddee ki ñuy jox bile information nag moom jàngee na sax ca daara bile moom góor gi nag mu daal di tabax benn jàkk ci daara jile Euh, mu nekkoon itam nit ku am maanaam bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo ëpp xaalis lool ca dëkk bile. ba waa dëkk bi yëgee na ma sang bi mi ngi tabax euh, bile juma euh, bile jàkk nag ca lañ ko daal di tere mu daal di dem ca sous préfet bu Pire daal di mu daal di ko may itam li nga xam ne moom mooy autorisation de construire mu ñëw di ko tabax waa dëkk bi ne du fi amee ca noonu lañu ñu daal di jàppante xeex xeex bu méttee métti mu daal di fa jaare ñàkk bakkanam ñu daal di tojjate li nga xam ne moom mooy jàkk ji démb ci suba nag la fa takk der yi dem daal di roñ nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon jiital ci itam ki nga xam ne moom mooy imaamu dëkk ba ndax nag ñu ngi koy tudd ci eh, mbir mile mbir mi nag mu nga xewee ci diwaanu Njéeri nekk à cinq kilomètres de piir waa dëkk bi nag li ñu def. mu nekk lu rëy rëy ci histoire lislaam ndax nag dinaa tabax jàkk ak doo ko tabax jarul rey sa mbokkum jullit fàttaliwaat itam imaamu dëkk bi imaamu dëkk bi di njëy moo ko jiite gendarmerie bu mu ñëwee moom la njëkk yóbbu ñuy ñaanalaat bu baax a baax euh, ki nga xam ne moom mooy Baye Mbaye mi nga xam ne l'islam rek koñor ndax dafa bëggoon a tabax li nga xam ne moom mooy jàkk ngir di fa jiite ngir itam di fa noddu yàlla yërëm ko te xaaral ko jànn jéggal ko ay bàkkaaram euh, loolu nag mi ngi ci diwaanu Ndiaye leneen li ñuy waxtaan waxtaanee itam moom mooy euh, ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda jàlloo ak euh, ki nga xam ne nag moom mooy euh, Abdou Mbow dañoo def accident bu métti métti mu nekk ci autoroute Ila Touba. ñoom nag am nañ ci ay gaañu gaañu yu métti métti le directeur de cabinet du chef de l'État Abdoulaye Daouda Diallo et le député Abdou Mbow ont été victimes hier jeudi vers 22h d'un grave accident sur euh, la route sur l'autoroute illah Touba. La voiture du premier dans laquelle ils voyageaient ensemble a percuté de plein fouet un véhicule stationné sur le bord de la route ñoom nag seen oto bi dafa mbëkk li nga xam ne moom moo na oto bu gaare woon euh, ci li nga xam ne moom moo ci pegg bi ñoom nag euh, naam nag euh, gaañu nañu mais nag taxu ko metti noonu leneen li nga xam ne itam xew na ca diwaanu Padoua dañoo fekk benn euh, femme mu daal di euh, décédé loolu nag mi ngi xew fii ci diwaanu euh, Kafountine nekk fii ci pegg Dakar Libération sax moo ñuy jox bile information gendarmerie nag ba ñu ñëwee daal dañuy def seen liggéey ci la nga xam ne femme bi nag mi ngi dee ci yoon bi nga xam ne moom moo nekk ci diwaanu Padoua. démb nag lañu ñu daal di tëj li nga xam ne moom mooy burdu bile foofee ca diwaanu Tiwaawan mbooloo mu takko takku eh, nekkoon ci zawiya Seydil Xaaji Malick si nekkoon itam eh, ci juma Serigne Babacar si Serigne Babacar si eh, fàttaliwaat itam Njool Fuuta ak Mam Maodo ñoom ñëpp ñu ngi woon foofee ngir li nga xam ne moom mooy tëjuk burdu gile foofee ca diwaanu Tiwaawan ñi ñaanalaat bu baax a baax Serigne Babacar si Mansour xalifa général des Tidiane mu yàgg fi lool cànd ak moom ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp si Alpha Mayoro Ali Boy Michel Sambay Naar xalifa Yaay Daba Ndiaye si Sawande Sawata Gàcce si Tukulóor si Donne Tamsir Buna si di fàggee danga mi ci njawaar euh, Bakk rek dara man aram loo Kumba Caam Mbañ Pend Pate Pend xar yàlla bokku coor borom bonnet carré bi borom listixaama borom manteau bi borom lion d'honneur le marabout le plus généreux Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Cheikh Hadji Malick Sy ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér noonu noonu itam. la ñuy ñaanalee ki nga xam ne moom mooy Serigne Mahi Niass borom euh, Tivaouane borom Kaolack di moes ñi ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal itam kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Yoff Wakaam ak Ngor ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax waa Layeen ñoom itam euh, ñi ngay waajal li nga xam ne moom mooy euh, guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu itam lañ koy màggalee ca diwaanu Kaolack di ko màggalee ca diwaanu Touba ñaanal itam Serigne Mountakha basiir mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñi ngi ndokkeel bu baax a baax a baax ñëpp ñi nga xam ne jamono yiñ toll ñi ngi waajal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko màggalee fu nekk foofee ca diwaanu doxoo ba ñoom itam ña ngay màggal guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñii ziar bu baax itam euh, ki nga xam ne mooy suñu wasila di euh, Serigne Ndiaga Ndiaye moom ak i rakkam famille El Hadji Sosi Ndiaye gi yëpp nag tubaarkàlla ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax baax baax a baax alors démb itam ñu ngi woon ca euh, tribunal lu Ndakaaru Ndiaye bile xam ngeen ne procès aji caare ak ki nga xam ne moom mooy qualifié woon démb nag leen doon doon atte waaye nag dañ ko mujj dàqaat ba le 13 octobre ki nga xam nag moom mooy layool aji caare li muy sàkku nag ci ki nga xam ne moom mooy qualifié woon mu daal di leen jox li nga xam ne moom mooy 100 millions mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax Euh, ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen site d'information muy profité bu baax a baax a baax ci bés bu sell bi di aljuma euh, di sargal bu baax sama benn jigéen dafay euh, anniversaire tey di Ndella Ndella on te souhaite beaucoup de bonheur sama xarit nga nit ku baax bëgg ma lool taaliba Serigne Saliou bëgg lool Moustapha Thiom ak soxnaam Aïchatou alors Ndella on te souhaite beaucoup de bonheur dundal wéral yàlla sàmm la aar la musal la nu musalee maam ko ci màggalug Serigne daal di dégg waaw mi bëggul dara rëcc la ci réew mi maa ngi lay digal nga suivre concept bii tudd récap du jour fii ci sans limite TV maanaam lundi ba vendredi dañu lay jox xibaar yu wér te woo muy wàllu people wàllu ba ci xew-xewu jamono tubaab bi naan ko fait divers danga bëgg a xam xibaar yi ñeel sa artiste préféré sa acteur préféré wala sax sa influenceur préféré récap du jour def la koy jox en temps réel limite TV xibaar yu amul limite xibaar yu amul